fële ca Dakar capitale di Sénégal police daal nee ñu gàntal na fa benn réunion boo xam ne ñu nekk ci mbootaay gi ñuy wooye LCBT kuy ñoo ko doon euh, amal benn réunion ñoom nag ni ñu daal jàpp nañ ñu bëree bëri ñoo xam ne leen di wooye ay lesbiennes benn organisation boo xam ne daal li ko tax a jug mooy défendre ak ñi nga xam ne ñoo di lesbiennes yi ak ñi yëngu ci lu ñu mel ak itam ñi yëngu ci beneen yi mooy ñi daal ñu yëngu ci li ñu wooye bisexuel xam ne ñu bëgg daal xool nan leen neexee ñu nekk ci loolu daal dañ doon amal benn réunion àllarba bii jàll ci benn hôtel bu nekk fee ca dakaar ñoom ñii nag bokk na ki ñoom ay lesbiennes ngir bëgg a teg ay plan d'action yoo xam ne daal ak itam def ay propagande ba jafe-jafe yii nga xam ne ñu ngi koy dund ci euh, Sénégal rawatina ci réewi Afrique yi ñu mën fexe daal ba askan yi mën leen xajal xajoo leen loolu mel ne tax na police yaa di ñëw daal arrêté arrêté leen arrêté boo xam ne itam bu métti la ki ñoom ndax sax ñoom réunion bi dañ koon amal mu nekkoon rencontre secret waaye police daal di ko yëg bi nga xamee nag ah, autorités yi nekk ci réew mi yëg nañ ko ci leen daal di def lépp luñ man daal di joxe ndigal ñu da ñëw daal di leen jàpp daal leen arete ñoom ñi nga xam ne itam mbir mi dañ koon def kon ni ko wax dañ koon def ci lu ñeel wàllum secret ñoom nag réunion bi li ko waraloon mooy fexe ba ñi yëngu ci wàllum gi sexuel ñi yëngu ci wàllum lesbienne ak ñi yëngu ci wàllum borom ñaari tur ci aju aju ñu daal di fexe ba ñu teg ay plan d'action yoo xam ne ay pexe ba nit ñi mën leen a yaatal ci fi ñu nekk itam daal di leen di jéem a xajoo teg ay propagande daal nga xam ne mbootaay goo xam ne mbootaay gi dafa ëmb juróom benn juróom benn dëkk yu nekk ci Afrique de l'Ouest Sénégal bokk ci ñu doon amal benn réunion secret fii ci Dakar ci benn hôtel police nag daal di gàntal seen i pexe ginnaaw bi ñu ko jotee ndigalu ñi xam ne ñoo di kilifa yi nekk ci réew mi. nañu nag ñun jàpp daal ah, ñooñu jàpp muy lesbiennes yooyu daal bokk na ci ñu bëree bari bokk na ci nag ah, ah, benn sénégalais ak itam yeneen jigéen yoo xam ne ci yeneen jigéen ci yeneen pays Afrique kon daal fukk leen jàpp ki ñoom bu ñu sukkandikoo nag ci source bi nga xam ne daal jege na lool. nekk ci hôtel boobu nga xam ne fa lañ doon amale lu ni mel benn organisation nag bu nekk ci Afrique daal di ëmb ay ay réew yu bëree baree bari bokk na ci yooyu réewum Cameroun daal ñoo nekk def ay plan ngir fexe ba daal ñi ñuy wooye LGBTQ organisation gu yees la tënku ci ah, gay kayan kayan boog kayan QUAYN ah, ah, ñoom daal ñoo bëgg a teg ay pexe fii ci Afrique ngir fexe ba yëngu-yëngu yu mel noonu yi lu jëm ci wàllum LGBT waaw lu jëm ci wàllum mbirum lesbienne mbirum yi ci aju daal ñu fexe ba daal fii ci Afrique de l'Ouest ñu mën leen a bàyyi ñu mën ko def nañ nañ ko bëggee teg ay pan programme ak yi mbirum propagande ba seen mbir yooyu mu mën a am waaye nag autorités yi yëg nañ ko daal di koy gàntal ñu wax na tam Sénégal itam lu ni mel autorités yi ñoom loolu maanaam caaxaanuñ ko waxtu wu nekk ñu ngi koy bàyyi xel ndax jàpp nañ ne dafa loolu dëppuwut ak loi fii suñu réew di Sénégal loi bi def koy tere ba tax na ñoom ñooy daal bi leen yëgee ci benn hôtel fii ci Sénégal yi ñooy sekkere ngir teg seen i daal ci la ñëw jàpp leen fukki lesbienne jàpp na leen ci kenn ki ab Sénégalais la ñu doon amal ak réunion fii ci hôtel bu nekk fii ci Dakar.